asalaamaaleykum euh, ñu leen di présenté man la Sele Dieng président COMIFA nekk ak euh, sëñ Mbacke Lo trésorier général bu COMIFA nekk ak Ndeye Aram Niang secrétaire général bu COMIFA ñoo ñëwoon tey fii ci SEDAF bu Mbacke di fi tàmbali tey sunu formation coopérative ak membre yi nga xam nii. ñooy membre yi COMIFA COMIFA mooy coopérative des migrants et leurs familles muy coopérative boo xamee ni coopérative immigrants yi njëkk a taxaw fii ci Sénégal pour liggéey ak yëpp immigré yoo xamante ne nii ñi ngi bitim réew wala immigré yi ñëw nañ wala xalaat nañ seeni doom wala seeni mbokk kenn koo xamee nar naa tukki kon tey li leen di dégtal mooy ouverture bi après lépp li nga xamante ni dana am durant ci biir formation bi danañ leen ko digtal fan yi ci des li ñu bëgg daal mooy ubbi buntu xale yi yi dem ci gaal yi ñu bañ a dem immigré yi fi nekk liggéey yuñ aussi mën a créer ay emploi ñi nga xam ne aussi xalaat nañoo dem ñu fexe ba du ñu dem ña nekk fale aussi bëgg ñëw ñu créer ay liggéey yoo xam ni ñoom danañ ci mën a jàppalante lëkkaloo pour liggéey bi gën a yaatu. ñu ngi formation bi trois jours lay am. maanaam tey la tàmbali ak euh, suba ak gannaaw suba su ko defee ku ci nekk rek mën a xam lan mooy njariñu coopérative ak lan mooy njariñu développement ci biir coopérative bi waaw formation yi bu jeexee danañ ci joxe ay diplôme dernier jour bi dana am ay diplôme yu ñu joxe ñëpp ñi nga xamee ni ñëw nañ ci biir coopérative bi bokk ci formation bi pour ñoo ñu man di former ñeneen ñoo xam ne ni ay immigré lan wax leen lépp li nga xam ne moom lañ doon ci biir immigré yi formation bi ñëpp immigré la góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo xam ne ni ñëpp ab immigré nga rek am nga droit bokk ci koo xam ni sa famille aussi immigré la am nga droit bokk ci koo xam ni sax xalaat nga pour am nga droit bokk ci kon ñëpp lañ ko yaatal mais dañ ko tënk ci immigré ak famille gannaaw Mbàkke parce que fi lañ ko tàmbalee te dañoo bëgg mu wër Sénégal képp parce que fi ñu toll boo ko seet saal bi aussi am na ñoo xam ne ni ñii Mbàkke lañ dëkk ñii Touba. région Diourbel gi yëpp la mais am na ci ñoo xam ne ni jóge nañ ba région de Njambur muy boori Njaañ ak ñoo xam ne ni jóge nañ fi ba Njaga ñaaw ci région de Thiès muy jàpp département Louga ak ñi jóge Dakar aussi ñëpp wax dëgg yàlla yaatu na pour ñu lawal xam-xam pour ñu ñëpp xam ko te bu ñu jógee fii danañ créer yeneen poste yoo xam ne nii ci yeneen côté lay nekk ci biir réew mi.